tey sunu daje bi li ko waral dafa am kenn ko xamni dafa dëkk Balakos et depuis ba école bi amé problème ba légui mu ni woon dafay participer aussi bien pour la réhabilitation de l'école ak aussi de façon volontaire mu am lo xam dina ko dimbale école bi et occasion bi tay la présenté wu mom mu jital euh, ben neuvam en l'occurrence Omar Kamara, pour mu ñëw def ci kooku nuy wax no xamni mo ni won da écoles, il s'agit de Moussafa Kamara. donc définir fi apporter et surtout avec pandémie bi am temps yi ci bi sa participation pour un bon épanouissement des élèves aussi bien pour lutter contre la pandémie aussi bien pour participer à l'émergence des enfants au niveau de l'école

parce que ku nekk xam na ni école euh, dafa bëri ay jafé jafé gis nañ ni fièvre bi di corona mi ngi gën law donc tay mu def geste bu nga xamné ni dafa jëm ci euh, freiner loolu may ay masque ay gel ak euh, yeneen yu nga xamné ni dina mën tax ñu xeex fièvre bi aussi ci côté pédagogique bi aussi may ay craie donc loolu yëpp ñu koy def te en amont aussi ci période hivernage aussi yapplé won na fi ay ndaw ñu vraiment taxawu école bi parce que ku yàgg ci école bi di nga xam ne école buy am ndox la buy taa donc ñu defoon si ay gestes yu bëri yu jëmee ci côté boobu. arrêtu tafaay parce que ñoom ñoo fi ñëw indi ah lu munu yéene si école bi école bi nag ku ko defal sa bopp nga defal parce que école bi tey jii lépp lu mu mënti am fii la jaar bokk na si élèves yu jëkk yi jàng fii si garçon parce que ay jigéen rek fi doon jàngee moom ak ñoom Ousmane Niang vraiment ñoom ñëpp fii la ñu jëkk jàngee. mais ba yàlla jox leen teraanga tey ji ñu dellu si feebar bi ñëw ñu ñëw participer si feebar bi si xale yi may leen ay créé parce que jumtukaay loo mënta jàngale enseignant yi créé mooy jiitu may leen sabon may leen tam aussi ay lave-mains fi nga xam ne xale yi si la ñuy raxasoo ak ay gel pour enseignant yi loolu yaakaar naa dañ koy def ko remercier di ko gërëm di ko sant yàlla may ko lu ëpp nit am na yeneen ñi nga xam ne tam defoon nañ fi comme mari Bob au passage dañ koy remercier di remercier encore Tafa bu ñëw boole si te am na yeneen projet yi nga xam ne sax waxoon nañ ko que yaakaar naa ni en tant que nag ah élève ancien élève de l'école te lu si mën nee na nañ ko si def te jii gis nañ ko tey jii mu def ko si donc duñu def lu dul kontaan si te di ko remercier di ko ñaanal yàlla au nom de la communauté au nom du quartier nous ngi remercier infiniment vraiment ngeen jàllale nu ma vie. Content de c'est trop C'est vraiment un masque un gel Il il a lutté ngi lutter Covid C'est ce qui les gestes barrières donc au premier préalable daan ko mën a loolu rek